5M TV Sénégal. mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm Serigne Ousmane Sonko ma ngay wéyal ay tournéem ci biir réew mi ginnaaw bi nga xamee ni rek eh, mi ngi wéyal ay tournéem di ko amal nag saa su génnee rek moom senegal yi di ko gën a bëgg di ko gën a jublu góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp di ko gën a bëgg buy saafanteeg askan wi. am na su ñoo xam ne dañuy kontaan ba nga xam ne daal ñoom sax lu ñu tal dara loolu dañuy gis ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko di saafonte ak moom gis ko bëgg ko lool di saafonte ak moom mel ni koo xam ne mosuñoo gis ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko loolu lépp nag nekk loo xam ne yàlla moo ko may moom mii di Ousmane Sonko saa su nekk rek Sénégal yi di ko gën a bëgg moo xam mag la moo xam xale la moo xam jigéen la ñëpp di ko gën a bëgg di ko gën a jublu moom mii di ki nga xam ne daal moo di Ousmane Sonko mu nekk loo xam ne nag dëgg yàlla saa su nekk dañ koy gis nag moom mi daal Sénégal yi di ko gën a jublu surtout ndaw yi di ko gën a jublu ñëpp daal di ko gën a jublu jamono ji daal ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko daal moo téye Sénégal jamono ji daal Sénégal yi daal moom la diglu voilà kon mbokk yi jox leen dig ci 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci ànd beeg 5M TV Sénégal ngeen wéy di abonné di partage yi jaa ngeen jëf ci topp gi ak safa ak namoo jaa ngeen jëf.